Basiru Mbàkke am na njariñ gisandoo entrée vidéo bii nii nga xam ni maam njaay Savon moom toj na dëkk bi rajaxe na ko ndax pour man sax da doon la maanaam dafa ñëwoon ci làmb wala ab tàndi biir waaye bi ma xoolee vidéo yi ndeke moom da doon def euh, màggal yu Rajab man laaj may laaj moo di ba xam ñun Sénégal la nekk wala dafa am xeetu maanaam màggal yu bees yu am ci réew mi wala dafa am système bu bees moom ne daal léegi dañ koy màggalee suñu sëriñ si gis nga bala maa continuer wala bala maa wax ci li ma war a wax gis nga yii nii bu ki sëriñ si jugul dinañu may dëgg ña nga xamante ni dañoo jug ngir xeex tarixa yi ndax am na ñoo xamante ni saa yu ñu xëyee ñu ngi xool fan la ñuy gàkkalee suñu mag yi ba yàq leen kàdd yoo xam ne tey jii kat ñi leen gëmoon dinañu leen weddi te kaa bii nii ci la bokk ndax lu toll ni kazu rajab nga xamante ni ñu ngi koy màggal fu ne biir Sénégal ngir daal di santale yàlla seriñ fàllu Mbacke bis bi nga xamante ni moom la juddu woon te ku xam Serigne fàllu xam ni doomu Cheikhul Khadim la woon koo xam-xam ni mag mu baax la woon mag mu yiw la woon mag mu teg woon ci dëgg la woon bisam jot ñu koy caaxaane mais lan mooy lan mooy maanaam jigéen def cheveux naturel ba mu ba mu àgg ci ndigg li make ba mel ni buubu golo ah góor tingom la ngay yëkkati say loxo mel ni kuy maanaam feete victoire mais Serigne Fall bu ñu koy màggalal bisam am na nu ñu ko war a defee dafa war a ànd ak yar dafa war a ànd ak teggin waaye Sénégal daal léegi ku xëy rek am bës rek bu événement ñëwee nga wane ne da am xaalis di yàq wane ni man la gis nga bu ñu moytuwul martaba mag ñii nii même bu dee yaa ngi namu nga ni léegi yàlla tere na la da ngay xëy rek lépp la la yàlla joxoon nangu ko ngir mer ngir toroxal bi nga xamante ni yaa ngi koy toroxal mag moomu ñoom dañoo jàpp ni ñu ngi màggal waaye dañuy toroxal màggaluñu mais jigéen nga xamante ni léppam awra la jigéen nga xamante ni dafa war a teey dafa war a dox ndànk wax ndànk yow nga am audace ñëw maanaam ci biir nit ñi nag góor ti ngoom la li nga sol saa foofu jekkul ndax say kiwis mu ngi feeñ mais ci ban diine lañ nekk lii bu dee diine la dañ ma wax ci ban diine la nekk sëñ Fallou kenn gënu ko yiw tey jii boo demee Touba ña nga xamante ni ñoo ngi koy màggal boo leen fekkee ca jumaa ja dañoo muuru ba jekk ñi yor seeni xasiida di jàng ay jawartu ah di jàng ay waqaani ak yeneen ak yeneen ngir won ni kat bis bi dañ koy santale yàlla suñu fàllu mbàkke waaye yow alal dab la ret teraanga dab la nga bew yaakaar ni lu la neex nga koy defee alal ko du noonu gis nga nit da ngay xam la nga war a def la nga moom ak loo moomul bu dee nag danga am xaalis booy yàq mais woteel sa sataan di biir bu ci am kersa mais dem bëy jël bi ci sëñ Fallou di ci def ay xawaar da ci def yoo xamante ni bokku ci fu ñu ko teg fan rek lañ ko teg laa bëgg a xam fan lañ ko teg du diine du lislaam sëñ Fall bu dundoon bu ñëwee fii dina leen mere te saa dafa dul ñëw ndax yàlla nekk fa yonent bi nekk fa Serigne Touba nekk fa man maa ko wax ndax jotaay boo xamante ni góor ak jigéen jaxasoo yow muuru saa defoo ko nga ne sëñ Fallou ngay màggalal bisam est-ce que sañ nga dem ci raw du sëñ Fallou ci comportement bii nga xamante ni moom nga wone ki sa bis bii nii mais il faut qu'on arrête quand même diine du caaxaan Serigne Fallou nit yàlla la woon nga xamante ni demoon na ba toll ne kat man Fallou lu ma ñaan yàlla yàlla defal ma ko ngay caaxaane mag moom parce que da am xaalis te sax bu doon sax dangay ngay liggéey ci lu jaar yoon yow sa liggéey moo di jël ay xeesal di ko jox jigéen ñuy soppi seen der ku ci soppi yaramam pour pourcentage bàkkaar boobu yow am nga ko ci ndax yaa koy influencé dèjà fa nga jëlee sa xaalis daganul nga bugg koo dugal fu dagat mais même bu dee sax maanaam da nga ciy jaamu yàlla mais na yiw mais lan mooy jigéen góor goo xamante ni du sa jëkkër du sa baay du sa rakk du sa dara ñëw tingom la nga naan da màggal Serigne Fall mais faut qu'on arrête quand même du dëkku maanaam caaxaan yii ret nag moo tax réew mi du mës a dem gis nga pour man ni ñuy teree yenn ci màggal Touba nañ koo teree ci yenn bisu Serigne si ndax suñu Serigne si amuñ ñu dul ñoom. Serigne fàll dañ koo war a wekk dañ koo war a fonk dañ koo war a jox cëram ndax dafa jaamu yàlla ba am la mu am tey jii bëriwaana nit nekkat man ci barke Sëñ Fall la ma yàlla mayee nangam mais Sëñ Fall yàllaa ko defal dëgër boobu ndax dafa juboon ak boromam léegi yow nga ne da ngay màggal ba suñ Fall de un muuroo sa bopp kenn xamul la kenn xamul golo nga kenn xamul dàngin puudaru ba kenn xàmmeetu la nga naan danga koy màggal du nii nañu xool beneen vidéo bi ñëwaat. neen dafa xam <laughs> billaay Sénégal dafa bëri caaxaan quoi Sénégal dañuy jay nit di jey nit ba mu dem ba yaakaar ni léegi moom mën na leen genre gi rek xëy naan dañoo bëgg a jiite réew mi ndax nit ñi ñoo leen di jey ci yoo xamante ni maanaam dof lañ leen di jàppee au début ba à nag nga dem ba am tur nga yaakaar ni yow nit nga fekk yow nit ñi dof lañ la jàppee dëgg la xam ki Serigne Fallou Mbacké d'accord mais ci anam biñ koy defee yow déjà yow ku xool nanga defee maanaam sa sa tànt xam nga ni tàntu caaxaan la waaye seenu ñu fa ñu toog di jàng ay xasaayit seenu ñu fa ñu lel fa ay basan pour julli seenu ñu fa benn signe boo xam tey jii dafay wane ni kat bii sëñ Fall lañ ciy màggal mel kay yaa woote ngir puukare ngir wane ni am alal pour yàq waaye xam nga ni boo toogoon jàpp ba sell yàq ña nga am ngeen toog nga woo ay ndongo daara ñu jàngal la kaamil ñi jàng xasaay jàng xasaay yu sell ñaanal la yàlla ci barke Sëñ Fàllu yàlla yokk la waaye toog di banaan naan xëm boo xëmee e après xëm bi àggul fenn titre ret la ndax boo xoolee ña topp ca gannaawam yor ay caméra c'est parce que dañ koo préparé moo tax nit am na yoo xamante ni bul ci dugg Mame Ndiaye Savon soo buggee continuer dund yàlla musal la na nga moytu yenn mag ñi am na ñoo xamante ni kenn du leen caaxaane ci réew mi Serigne Fallou Mbacké ci mag ñooñu la bokk dafa jubóog boromam ba xëy dem am na benn bis sax benn taalibi maanaam taxaw ki tali di xaar oto dañ fàllu romb gaare ne ko yéegal ñu ne mu ne ko ah seen bi kat ëllëg na yàlla nag ma dugg leen bu ne ko ah sàllaaw naa la fekk ci yoon biir ndax maam njaay sabon yaa ngi ci yoon boobu noonu de un euh, yow sa liggéey moo di jaay ay saabu xeesal fexe ba jigéen ñi soppi seen der te ku ne xam na ne loolu de un baaxul ci santé de deux yàlla santaanewu ko dépigmentation dafa xaram yow dèjà gis nga boo soppee Sëñ Fallu lépp lu xaram waroo koo def yaa war a dàq julli ñëpp yaa war a wax ñu yaa war a dàq wax lu baax ñëpp doo dàggasante doo xulo waaye yow chaque jour yaa ngi dàggasante ci réseaux sociaux yi chaque jour yaa ngi naan diw chaque jour yaa ngi wax nit lu ñaw nga naan da ngaa sopp Sëñ Fallu mais il faut nga changer bu dee da nga bëgg Sëñ Fallu daal ci allure bii nii na ko changer nekk ci leneen sinon. ëllëg ci biir bu la martaba sëñ Fallou dalee gisuma la mbaaw xëm yi lii day xëm ñu jàpp wala nga xam ne maanaam da nga koo manigancé ngay wane da ngaa bëgg sëñ Fallou ñi bëgg sëñ Fallou ñu nga tuubaa ña nga dem te jumaa yi toog jàmm yàlla jàpp ba sell jàng alquran jàng ay xasaayit bernde di maye ki sécurité kenn yëgul waaye loo def nga naan def naa nangam rey naa nangam nag nangam mën na laa togg et après nit booy def na yàlla tax waaye yëpp puukare moo tax gis nga ñu def du duñu woo journaliste duñu woo caméraman waaye dëgg yàlla site yëpp ne leen kaay leen ngeen jël ma wane ma pour ma feeñ et après man chance la am réglel marta ba mag yi baaxul de gis nga bis bu la dalee bis la dalee di nga xam ni kat suñ Fall du morom ñu ñëw ci troisième élément bi. ma mën a ne. looloo séeri lii laa la ba xoo sa cin sa rosi. sama cin sama rosi nag mosut a am barke ku ne xam na ne ma damaa mën. Mhm. mënantuwuma. dëgg la xam nga ku ko mën di ko def la bokk la ku koy jéem. Mhm. dama koo rësi rek mu diig ma bàyyi ko noonu tubaarkàlla mu box boxal gis nga nii day box boxal nii may wax ak yow muy box boxal di tëb nga mu ngi box boxal te xam nga yàpp bi dafa neex a ñor ndax xar bi ndax nag bi nu nag bi man damay laaj ba xam ñii di wax nii ay góor lañu walla ay jigéen lañu loolu rek laa bëgg a xam ba xam ñii góor lañu wala jigéen lañu mais kan mais maanaam kañ la góor daan toog ci waañ naan rusi naa sama mbana xam nga su sóor naa ñaari mbana sama rosi lan lak yooyu noonu ah man Sénégal Sénégal fu ñu jëm nii gis ma fa ndox de bu yeboon ak jigéen ñi amagul boroom kër waaw ñoom maam yaay savon numéro 2 ak ñoom debboog ñooñ nañu gaa wuti ndax góor xam naan dafa nar a manqué ndax xeetu góor yi ma gis mais góor di wax di lamsal ah mais sëñ bi na góor tuuti bokk nit bu la defee góor xamal ni góor au moins sax yéen am ngeen xel yéen a waroon conscientiser ki nga xamante ni moo di Mame Ndiaye Savon mais pas nag ngeen di ñëw di wane comportement boo xam te ne ku leen gis xeeb leen est ce que ñii mën nañoo nekk imam <laughs> ñii de xam naa jàq buñ taxoon naan dañuy jiite xam naa ne ay yat moo leen fay fekk euh, góor da war dëgër këj boo waxee boo waxee ñu xam ni góor nga boo jëfee ñu xam ni góor nga waa ji lam sali naan rusi naa def naa nangam d' accord seen métier la mais comportement bi na góore moo tax góor dafa war a ànd ak moroomi góoram jigéen ànd ak moroomu jigéenam foo gis góor di fréquenté ñoo xamante ni du seeni nawle bu yàggee mu jël seen comportement te bu yàggee kenn dootu la nawloo te yéen nag bu leen yàlla dimbalee ngeen dem ba am doom est ce que ñaan ngeen yàlla ñu ne kat yéen seen baay comportement bi mu yoroon mara di taali mais loolu doxul góor na def fii fi góor mam Ndiaye Savon bu xewlee na woo ay jigéen ñu toggal ko yéen ngeen toog ci place góor ñi bu dee mën ngeen jàng alxuraan ngeen jàng alxuraan bu dee mën ngeen jàng xasaay ngeen jàng xasaay waaye di lamsal ak yeneen ak yeneen mais fan la réew mi jëm yii ret moo tax ñu ñuy yem yii ret moo tax ña nga xam ne dañoo taxaw teem ngir xeex këru diine yi rek di ñu yem ndax yii moo tax léegi ñoom bu ñu génnee wax yi léegi yow lan ngay génn pour plaider amoo dara loo wax du dara loo xamante ni mën nga ko wax pour convaincre leen kon nag tamit maam sa Savon bu jàpp suñu fàllu am na yoo xamante ni boo koy def def ko ci beneen anam bu rafet waaye bu ko defee nii. lii ni ëllëg ku la di xas yaa tooñ ku la di xas yow la ndax amoo fenn foo laye booy ànd ànd ak ay responsable nga def ko ci lu yiw ëllëg bu ñuy lim ñoo xam ne dañoo sof suñu fàllu mais ñu booy la ci waaye ngay def caaxaan yoo xamante kenn xamul tàndi béer la kenn xamul anytime la kenn xamul xawaar la waaye li moom du Kazu Rajab bu ëllëgee na ko tuddee leneen lu dul Kazu Rajab màgg Sëñ Fallu ndax Sëñ Fallu bëggul lii wax dëgg fa yàlla ñu ñëw ci élément bu mujj bi médecin ci jox ko. maa koy nangu. Zal kay nangu ko. ñaar fukki ñaar fukki ci Cobra sama rakk ji nga xam ni toogoo naan su doon góor boo doon góor doo faj gàcce. ndax ñaari loxoy takk tubéy waaye mooy takk sër. nga nangoo liggéey bari jom am personnalité ci digg réew mi ne. dama ni yal na yàlla dolli jàmmam deux cent cinquante mille. juróom fukki juróom benn fukk junni kay ah tëral na ko de waaw ah, man xawma ci ngénte ngeen nekk xawma ci céet ngeen nekk xawma ki lan la bu ñu demee léegi ba ay màggal sëñ fàllu ñi naan dañuy làng di di di di tëralante pendant ce ngeen waroon toog yor seen kurus di def ay istigfaar di wax ay laa ilaa ilaha laa jàmmoo ko yàlla yónni ko sëñ fàllu yéen daal seen bopp ngeen tal <laughs> taloo leen fa keneen foofu moom ba fa kenn du turu sëñ Fallou ba leen ko moom mu nekk fa mu nekk ci ay xéewalam waaye yéen moom seen bopp képp moo leen ñor te li ma jaaxal mooy ña fa dede ñëpp ay caaxaankat lañ ña fa dede ñëpp du ci kenn koo xamante ni tey ji kat référence la dem katu tàndibéer yeeg wax katu yu ñaaw yéeg xaw yi katu sutura yi ñoom do ñoo fa daje di terelante lii nag gis nga bu ci kilifa yi jugul jël ci ay ndogal yu mat sëkk di nga mës a gis tàndibéer yuñ toog naan tàndibéer bi sëriñ diw lañ ko tuddee billaahi wal kitaab bi ndax gis nga Sénégal am na ñoo xamante ne seen façon xeexin diine moo di dem ci ñi siiw ñi influence leen ne leen kat bés bi tuddee ko sëriñ diw def ci la neex du mujj fenn ñooñu gëmu di yàlla jël lañ leen jox nekk ci te du mujj fenn mais fa réew mi jëm nañu moytu nañu bàyyee di caaxaane suñu sëriñ sii bu ñu demee ba ay bisu sëriñ fàllu ba ay màggal ñu waroon faa jaamu yàlla waroon faa def loo xam ne tëjikat dafay neex yàlla wala ëllëg bu sëriñ fàllu ñëwaatoon dina fa jubal si waaye yéen ngeen nekk ca la leen neex seen bakkan képp la gis nga xaalis dafay jeex yére dafay xeewi tur dafay jeex yéen am na ñu leen gënoon siiw fuuf ana ñoom xaar mbay ma jaaga seen jamono woy na yàlla na yàlla guddal fanam ana ñoom ndey sekk signature ah ana ñoom kini la mam ñoom faatu giwal mais ñooñu ñu siiw la woon mais ay femme de référence lañu woon ndax lan mosoo leen gis ñuy def lu ñaaw mosoo leen gis ñuy def li leen xeebee mais yéen ngeen ñëw judduwu leen lu dul démb yaakaar ni yéen moom jamono gis nga kuti moytul ci yenn cat ak làmmiñ yi ngay def nii gisuma la mbaaw sëñ Fàllu ko koy màggalati nanga ko teg ci sunna teg ko ci farata teg ko ci lislaam sinon nag bu yeboo ku ci moytuwul sa bopp nag gisuma la mbaaw lii nag damay alerté këru diine yëpp ndax du du du màggal sëñ Fàllu kese Tiwaawan am na ay influenceurs yi ko commencé def Tuubaa noonu yoof laayeen noonu ñaseen noonu kon donc këru dina yëpp nañu alerte wax ca ña nga xamante ni kat ñoo bukk ci kër yooyu kat ñe leen suñu sëriñ si di duñu ay caaxaanukaay duñu ay itam wutukaay xaalis loolu moo nekkoon tey jàngat bi nga xamante ni am nañ ko ci Kazu Rajab bi nga xamante ni xale bu jigéen bii di Mame Ndiaye sabon ñene daf ko doon féete te bakkaram képp moo ko tax a jóg lu jub ci yàlla la lu dëng suñ gàttu xam-xam la jërë ngeen jëf merci à ñaar ñi nga xamante ni yëpp ma dong moo ñu tax a jóg muy debbo ak eh, rose nga xamante ni soo ba léegi ñu mooy may eh, kaawaay garaawul baal naa leen yal na yàlla def jàmm ñoom ak seen kilifa kanasatu ak jabel ba suba incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup